fan wéri fan ak benn ci weeru juillet ci atum 2021 délégation bu am solo jugee na ca daara Hizbut tarxiya ci njiital Serigne Youssou Diop mi nga xam ne mooy responsable moral bi ngir ñu fekk si mbooloo mi di wilaaya fii ci kër Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ngir ñu waxtaane bis bu am solo ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké xalif général kulu murit yàlla dafa yàgg lool te wér ci njiital Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne moo jiite commission d'organisation bu fédération bile ñuy waxtaan waxtaan wu am solo jëmale ko ci bis boobu moo xam ci organisation la ak ci yeneen anam. gannaaw bi ñu jeexalee waxtaan wi nag sëriñ Youssou Diop yëkkati na yu am solo fàttaliwaat bu baax ne lii bëgg-bëggu sëriñ bi la sëriñ bi moo ko jox ndigal mu seet si mbooloo mi fàttaliwaat bu baax itam yéene ji sëriñ bi am ci bis bii nga xam ne mooy bis bi njëkk ci weeru muharram ñu war ko waajale ñaar fukki fan ci weeru muharram dëppoo ak bis bi sëriñ bi ñu bisee woon Touba ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha yusuf Yuusu wat na itam yaakar ji serigne bi am ci ñaari yile alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi fii kon eh, ci ben ci buntu keur yi Seexul Xaddim yi ci Touba ci ndigal lu mag li nga xamne Cheikh Mamadou muntaha mo ñu ko sant ñu war ko and ak talibi serigne Touba yep kenn ku ci ne ñu yaatal la ci ba nga yaakar ne yow dong bis bo xamne bisub khassida bu reuy wara bisub àllarba ben fan wala ñaari fan ci muharram ñu ñëw fii nag euh, ci ndigalu Cheikh Mamadou taxaa ndax dafa bokkoon ci ndigal li ma waxal boppam bi may sant liggéey bi yabaloon na ma ci sëñ xamsatu Mbakke moom sëñ bu waaye la mu ca teg fa saasa nee na ma euh, waa wilaya na nga dem ca ñoom ngeen ànd nos loolu nag tey jii moo ñu fi indi woon ñuy sant kenn nga xam ne mooy kilifa barab bi sëñ Ahmadou Mokhtar di sant sëñ Ousmane mi nga xamante ne jëwriñ def ñu boole ñoo moom ak mboolem kilifaam yi nekk fii ak mboolem rakkam yi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nekk sëñ Mouhamadou Moustapha ñun fekk nañ fi loo xamante ne kana na suñ jot ndax mbégte mi yaatu gi ak nangu ndigal li ak mu mokk ci ñoom mokk goo xam ne dafa mel ni mun nañ ko jàngal ku ne loolu lañ ci fekk kon moo tax tey jii bu ñu ñëwoon ngir ne rek yaakaar naa ne euh, waa wilaaya mun nañu ànd ak ñoom ci wàllu togg yi gis nañ ne nekkate <laughs> amul wet gu des wet gune mun nañ ci ànd ak ñoom te nañ ci ànd ak ñoom bu dee togg yi waañ wi ci gën a ci waañ yi moom jagloo jagoo nañ ko sasoo nañ ko jël nañ ko te yeeyoo nañ ko loolu kon fi saasi rek day dalal xel kon defe naa loolu daal doon naat ab soññ ci Hizbut Tarqiyyah sëñ Modou Thiam mi may dégg kenn ku ci ne xam ne saa su dem dem na te dootul dellu si te sëñ Tuubaa dañ ko ameel ak dund ko jébbal te saa su ne àdduna bëgg a foxarti ci waxtu ci ñun bëgg a foxarti euh, minute ci ñun bëgg a foxarti saa ci ñun te lenn la ci warta am lépp sëñ Tuubaa lañ ko war a jox kon ñu ngi sant bu baax di feddaliwaat suñu laxasaay di di di feeñal suñu mbégte ak tamit gën a joxaat suñu loxo nag kuréel bii nga xam ne sëñ Mouhamadou Moussa ba mu koy def bëgg donga yi bennoo rek mm-hmm. ku fi toogal sëñ Tuubaa loo joxoñ rek ñëpp song na ko loolu moom moo taxoon mu def ko loolu nag ñun yeewu giñ ci yeewu tey ji nañ ko jëfee dinañ ko ànd incha allah ci lépp nag loo xamante ne rek ñoom ñu ci ne wala nun nu ñaay ne ci nañ joxante loxo gën ko ànd daan nañ ko def naka jekk waaye dina gën a yokk incha allah jërë ngeen jëf gannaaw loolu sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguirane moom it na ay kàddu yuy ñu jeexale ko jataay bi suñuy bokk kenn ci nun fekk sunu muy waa Hizbut Tarqiyyah biñ ñëwee li ñu wax rek mooy seen bopp ngeen fi fekk ñu doon genn njaboot doon genn jëmm bokk itam benn bëgg-bëgg bokk benn pas-pas ñu ñëw fi ci kaw ndigal lu jóge ci Cheikh mun Mountakha nu koy ñaanal ak yàgg ak wér di ko ñaanal dong yëpp nu am mbégte lool ci tudd gi nu sëñ bi tudd dinu xalaate waale ci ay ay liggéeyam di am mbégte bu baax a baax itam ci sunu bokk taalibe yi nga xamante ni noonu fekk si ci liggéey bu nu ànd muy liggéey Sëñ Tuubaa loolu itam nu xam ni warugar rek la nu fas yéene fi sun borom joxoñ foofa rek la teg sun tànk muy wa anna haza sirati mustaqiman fattabiuhu ca diggu yoon wala ñuy jaar nu gis ni itam ni ànd bi moom la sëriñ bi bëgg moom la yàlla digle woon moo taxoon muy muy yónnee yonent bu fu mus a ñëw yitteem yëpp mooy na nit ñi ànd nañ wetal yàlla mm-hmm. ba ci sëñ Tuubaa mi leen donn yitteem yëpp mooy na nit ñi ànd nañ boole seen bopp nañ wéetal yàlla mooy ittihaad ak tawxiid loolee nag ca lañ fas yéene sunug dund ñu jeexal ko ci waaye nuy wax bokk yi nii lenn loo xamante ni soo ko ñàkkee doo ko amaat war nga ko fonk te mooy ak dund boo ko xasee ñàkk doo ko amaat te dund gi lépp jox nañ ko suñ tubaab te duñ ci téye dara liggéey bi daal fas nañ ko yéene yanu ci nu nu ngeen ko xalaatee nu ngeen ko bëggee ànd nañ ci ak yéen xam leen ni daal benn cër lañ ci jëmm ji te fa suñu yéene seqi ko ñoo ngi leen di bàyyi xel ci waxtu wu ci nekk bépp xalaat bu ngeen di xalaat di ko nasol yoon wi nasaale leen nu su ngeen fa nekkee yéene na fa wóotu jërut wax lu ngeen ca d'accord d'accord nañ ci dañ ko ànd ñeneen ndax sëñ Cheikh Mbacke daan wax ni ñaari ñu ànd di wut yàlla te mun ñoo ànd da am kooku dëgg te nun fa suñu waxtu ci nekk rek dana war a fa tege ca kaw yoon te daa waxoon ni fu fu waaye mën a nekk ci yéen di la wax ci lu boole nit ñi maag yow ànd waaye képp kuy wax lu leen tàggale tooñ nga yàlla tooñ nga ma te nun waxta si mooy suñ borom jooju rek ci lañ bëgga teg sun tànk mandargal ñaanuk suñ tubaaga yaa rabbi ij'alil muridina maa fi hisnikal hasin wasam la ijmaa bés ni ki tey daal xam leen ni seen i bokki talibe ñoo nekk fii xamoon ngeen ko waaye tey la gën a leeraat seen bopp ci ni seen i bokki talibe ñoo fi nekk yoo xamante ni lépp lu ngeen di def fas nañ ko yéene ànd ak yéen ba keroog nuy sàngoo suuf li feeg noonu dund daal loolu mooy wéy loolu noonu leen ko yóbbante bu baax ba yal noonu sëriñ bi gàttandu ak taw feexam yal noonu defal ngërëmam barkeb Seexul Xadim noo ngi ñaanal jullit yëpp nag yërmaande suñu borom ak njëgalam nawet bu barkeel jàmm ju yaatu te mbas mi jóge fi barkeb Sëñ Tuubaa loolu noo ko koy ñaan ci daraja Sëñ Tuubaa ci baytam woo wi muy wax doa uman bi yatawaasa wala mujab li nuurihi la si sax si wal xijab hmm. maanaam dara yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay ñaan waaye nee na képp ku def tawasul ci moom boo ñaanee suñu borom dana ko nangu loolu def tawasul ci dara jëy xaddim ak pàkk beeg ñi sañcoon pàkk bi ak ñi fi doon jaay seen doole ak ñun ñii di taxaw yal na suñu borom jëlee mbas mi te indi fi gën li nekk barkab sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf li ma ciy mooy xam nga dama tudd wàllu togg di jëli ci ab soññ boo xam ne woo naa ci dama jàppoon ne maa fi indi ay baas waaye fekk naa fi baas dama yaakaaroon ne maa fi indi ay rajo waaye fekk naa fi rajo dama yaakaar ne kuréelu xasida maa ko fi indi waaye fekk naa fi kuréel yoo xamante ne daaju sëñ Massamba yu cosaane yi nga xamante ne ku dégg xam ne wuuru sëñ Tuubaa yu jëkke ci la saxal di dem loolu fekk naa ko fi kon fii lépp ngi fi du sociale du ci wàllu communication du ci wàllu yëpp kon fekk naa def kon loolu maa ngi koy jottaliwaat waa Hizbut Tarqiyyah ñu xam ne yeneen barab yi ñuy dem nañ fexe ñu joŋante ci loolu ku ne say bagage génn ko ñu xam ne borom Tuubaa ko soxla jërë ngeen jëf